عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك مرحبا بشيخ تجاني امينا بسم الله الرحمن الرحيم mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ziare mboolem suñuy xulafa fii ci réew mi di ci jiital ki nga xam ne mooy euh, xadimul ummati wa xalifatu saaxibil fayda seydi cheikh mouhamadul maahi ibrahim di nuyu waat di ziyaara al imaamul akbar seydi cheikh ma tijaani seydi ali siise suñu xalifa cheikh mouhamadul kabir xasan dem ak mboolem njaboot ak Cheikh Hassane Dème gi góor jigéen mag ndaw muqaddam taalibe di leen yëgal xew-xew boo xam ne teraanga la teraanga boo xam ne lislaama ko moom mooy layla al kadmiya bi nga xam ne buñ ko tuddee xel na daj Seydi Cheikh Ahmad mu war a am fan ak kañ ak ci naka mi nga amee Medina Baye buntu kër Cheikh Hassane Dème muy tolloog ñaar fukki fan ñaar ci weeru août muy le 22 bisu alxames lay tombe incha allahu taala bis bi nag lépp kadmiye gi moo ko occupé taaba rond ya julli timis ga géexe ba ca fajar lépp bisu kadmiye gi la kadmiye bu ñu xëyee incha allahu taala dañu nekk suñuy xatamaat liñ naan wàcce kaamil seen daara yi danañ ci taxaw ci njiitu Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Hassan Dem buñ ca paree ci ngoon gannaaw tàkkusaan am nañ fa benn table boo xam ne ay ustaas yu mag ñoo koy taxawee ci xadara bi Seydi Cheikh Ahmad Bukaar ak i mbokkam yoo xam ne yëpp ay borom xam-xam lañ ñooy taxawee bëccëg keroog keroog Maodo ren bi nag thème bi nga xam ne ñëpp a ngi koy fuglu laay ji borom wax subhaanahu ci quran wasbir nafsaka laay yooyu ren moo nekk temu kan mii gi am na ay xatamaat xatma yooyu nag bu njàngee kaamil ba pare seydi alimaam al akbar seydi Cheikh Ahmad Ali Cissé mooy def xatmu ba ñaanal umma islaam ñaanal réew mi ñaanal mboolem taalibe yi eh, ci guddi gi ki nga xam ne mooy wakiilu daadin di Seydi Mouhamadou Mouhamadou Amine Ibrahim ñun ñu gën ko xamee ci Cheikh Baba Lamine mooy taxawu guddi ga ci waxtaan wu dundale ci Seydi Cheikh Ahmad Tidiane lay waxtaan kon nag bés baa ngoog mbokki taalibe yi. alxames muy le 22. bu nu ko Cheikh Hassan dem buñ xëyee ci ay xatamaat la nekk. ngoon gi ay waxtaanu diine la aju ci tariixa bi ak ci fayda bi. guddi gi Cheikh. Mouhamadul Amin Ibrahim moo koy taxawee kon ñu ngi ci oo mboolem mbokki taalibe yi ci ndigalal xalifa bi Cheikh Mouhamadul Kabir amul kenn ku ñu bàyyi ku sore ak ku jege mag ak ndaw kon bis baa ngoog mooy rendez bi nga xam ne ci la roox yi di delluwaate seen borom mooy rendez bi nga xam ne xol yi ci la ñuy yëgaatee seen borom mooy rendez bi nga xam ne ci la ñuy raxasee cër yi ñaanal ci askan wi kon ñu ngi jox ñëpp rendez-vous incha allah bundu kër si Xasan Dem ca Madina Baye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته